السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokk yi maa ngi leen di siyaara delloot nara waxtaan ak yéen yal ni yàlla jàppale nit ku nekk ci yéen fa mu toll ci ad àdduna mooy ku nekk ci biir réew mi wala ci bitim réew mooy diaspora bi yal na yàlla jéggal suñu mbokk yi dem alaaxira mu may leen àjjana fa tabarakallah seen laajte yi dina am benn bés ma wut jamono boo xam ne bii dina yomba ci yéen yomba ci man ma tontu seen question yi ci mbiru réew mi keroog waxtaan naa ci seen élection yi ngeen di wax waaye lañu waroon a jëkk def mooy caay-caay bi Macky Sall la indi ci réew mi ngeen toog di ko xool dafa mel ni xale yi ñoo ëppal xel yi ay mag yi léegi ñu tuddoon nag kilifa diini nag nilaar yi jaahil yi gën leen uppaleen xam-xam fu mu toll xamatu lu ñuy xamatuñu lu ñuy def ngeen ne Macky Sall tooñ bi mu tooñ yàlla tooñ yonente yi tooñ ñu baax ñi moo ngi ci continuer ba léegi ak njobootam ak ñi ko wor ñi nga xam ne ñoo ko wor di sàcc réew mi ay jigéen góor mag ak ndaw wor ko ku nekk di ko tagg toog ci seen kër di reex bu ñu xamoon li jublu ci seen kanam du ñu reer sax ci Sénégal tey dañuy daw ñu ne ñu ngay mu ngay jéem a faagaagal Diomaye ak Ousmane Sonko Ousmane jomay diglu len bu baax ma wax ak yéen ki wax gor gi la ki wax Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine la le ngeen jaar ci sen kaw inshallah rabbil alamin la shakk buñ len bàyyiwul yu may len sen jam le ngeen jaar ci sen kaw Aboubacar sadiq waxoon na ko aboo jaxle na waa këram su ngeen bàyyiwul yonent bu baax bi ñu baax ñi léegi doomu aadama jaar ci seen kaw amul ñetti weer ñoom ñëpp ñu suul leen ci suuf si xanaa xamoo ne Abu Jahl dañu ko rey nekkuma di waaraate wala di gàmmu wala dof dof lu comme sëriñ ñi nekk foofu ku nekk di waaraatee suma maam suma ndey suma baay déedéet ma lànk dama leen wax li nar xew Macky ki comme da danga deger bopp di nga gis ñu la uppal bopp fap gën la dëgër bopp uppal la fit gën la rakkaaju wallahi suma wallahi maa ngi ko wàcc ci catu jaasi Aliyu ibn Abi Talib na mu daan rende nit ñi keroog suma waxtaan indi naa ci Cheikh Anta Diop ñu ne Cheikh Anta moom dafa ne quatrième président de la République du Sénégal bu moytul boppam ci nguur gi lay deexee te dañ ko fay rey waaye nag dégg tu su ngeen di wax Cheikh Anta Diop Cheikh Anta Diop dafa am ku ko jëkk a wax ma bañoon joxe turam keroog ngir njobootam mooy bàyyi fàllu galaas fàllu galaas mooy gumba boobu nekkoon ci karafuuru kolobaan moo ko jëkk a wax ba mu ko waxee ñëpp dañ doon reex fekk am ñu bari ñoo xam ne juddooguñu mag ñoo ko woroon bu takkusaan jot takkusaan bu daan jot ñëpp dañ koy wor muy wax te lu muy wax téere lay doon moom laa jëkk dégg mu ne premier président sénégalais gis na ci boppam ne kooku dañuy daw ñu di ko jëm xeer muy daw ba mu deex ci mbedd bi moo ko jëkk a wax bala ndey Diop ndey ndeysaan loolu taxul may wax li may wax mooy Macky bàyyil xal yi ngay tooñ sa ndey sa baay moomu réew mi ñi ngay pexeel danga xamul li xew am na ñoo xam ne duñu xulok yow bu njàkkaarloon nag yow rek fa tabarakallah lay xew xew na Macky ñi ngay wax ne doo ko bandum ñu wor la di la reexloo di la feccaloo yaa gën a ñàkk fulla ak fayda ci réew mi boo amul fulla ak fayda da ngay masla ak nit ñi xale yi ñu rey di nga leen wane xaalis bi ñu sàcc mane donte ñaari dërëm la bés buñ la cuuraayee yooyu affaire u secret la yéen renseignements généraux bu yëf jotee na ngeen associé gars yi ñu wax leen li ngeen war a def gaa ñi dañu jàng xadiman wa xadisan dañu jàng tariqul xudama maanaam mag yu jëkk ya ëpp na ay deux mille ans trois mille ans nañ daan defee enquête kon nag yéen na ngeen associé gars ñi ñu di leen wax li xew waaw ñoom ñëpp dinañu wax ndax yàlla xam na li nekk ci seen xol ak li def bàyyi leen xale yi makki Sall yow ak sa waa ak sa ñooñ ak bandi yi nga waral ñu war la nag di jaayaaxu waxu naa leen ko keroog ni ñi li ñuy préparé xam nañu ko makki armée bi moomu loo ko te yéen bi am leen full ak fayda ci seen bopp am leen jom xanaa mbaam ngeen wala du ngeen nit bu sëriñ ñi mag yi dofee ngeen bàyyi leen ci seen toggaay ba ñu nekk seen dof waaw comme dañu dof léegi di mbubboo alquran boo waxee ni yàlla wax na suma maam suma ndey wax na li seen ndey yi waxuñu leen lii seen ndey dañu juboon seen maam yi jub yenn xaje waaw yenn xaje ngeen dekk nitu yàlla jekki ñuy tuur ay deret ci seen réew ngeen toog frankulaay mbaam moo leen ngeen sax xaj uffin lakum laanatullahi alaykum allahu sayudammirukum wa yaqtulakum insha allah tadxuluuna fi naaru jahannama xaalidiina fiha abadan safara yàkkamte na leen billahi bés bu safar di wane yàlla mu ne ko ndax fees nga mu ne hal imtalaati lu muy tontu yàlla Sydney dolli ma yàlla yawma taqulu li jahannama hal imtalati wa taqulu hal min masidin yéen ñii la ñuy dolli ñoom yéen ñii dañuy dolli ay safara ci seen kaw ndax du ngeen nit ñu baax du ngeen jaam yu baax toroxal nit ñi tëj nit ñi rey nit ñi ngeen farankule ak seen caay yu rey yi ngeen di wanewu الفيلم mané ne bay ñi nga def ci kasso bi ñu génn ci biti toppatoo sen rew di nga xamni rew réew mi moomuloo ko te billah amna li ñuy xéñ xam nañu ko xawma ma raayha tayiba xaw ma raaytalu xabiisa xet bu neex wala xet bu nakar waye xet bu nakar bi mom la sil muy touru ci sen kaw ma ne gaa ñu baax ñi góor jigéen ak man ak ndaw takku leen Macky dafa bëgg a teg di ci kaw bopp réew mantu ko manatu ko jarul ngay góorgóorlu di jéem dafa am ñu nekk ci armee bi mbaam lañu mbaam lañu mbaam moo leen gan comme li yàlla way ci alquran ne ci sooratul jumu'a mbaam mu sif ay teere te xamu lu nekk ci biir mooy militaire yi ñu li ñuy sol mooy lan yal na ku dal ci kaw xale yi léegi yal na yàlla alku alak la rey la muy policier muy militaire muy gendarme yéen ñi nag yéen a yéen a yàq réew mi war nga jublu seen fetal yi depuis longtemps ci Macky ak wàkkaram du rus xooleen dëkkee leen war ñooñu sax am na ñu proposé ne dina ñëw dimbali ji réew mi yéenee mbaam waa mi Macky mi bu nekkee ne nangu teg yëfi ci yoon ngeen délogé ko léegi léegi léegi léegi ah Europe yi la yaakaar moo ñàkk fula fayda européen bugguñu ko rey ko léegi gis ñu soxle sax pour jël li mu yore xoolal suma benn jigéen ndeysaan yu porté nañ ko plainte sax ci France mooy suma jigéen yaa jee nekkoon suma xarit Pascaline Bongo xoolal ni ñu koy def léegi ci réew ma xool ni ñu def Mamadou ndax Mamadou dafa feebaroon bi muy de ci Maroc <laughs> xam ngeen li xew gaa ñu mel ni mag yi ñoom lañuy ñuy ren sànni seen bopp yi déclaré def cercueil boo xam ne kenn du ko vérifié Macky dafa dof xamu li muy def waa mi duma ma yàgg tey na Macky génn ñi mu tëj ci kesu bi européens yi moo xam dañu koy dimbali nañu seetaan ndax dañu ko dimbali wala déedéet ñoo ngi jaaxle ñu ne ñoom yàq nañu seen diggante ak Afrique ñoo ngi ko bugg a réparer kon du ñëkk di garde ay xaj ku mel ni Macron ak ba leen ma xamee ci Gabon mu daan ñëw loosi ci suñu bureau yi foofu le fu ñu dëkkoon ci hôtel bi ñu wax Rendama foofu la daan ñëw di yalwaan xaalis ci président Bongo coow la fa nekkoon bokk naa ci ñu ko réglé ndeysaan yàlla ko yàlla xar àjjana mooy Aboubacar ndeysaan suñu ambassadeur ba Mbaye Diallo bi ma demee Côte d'Ivoire di régler problème moom mun xam naa tan ñëwul mais dama ragal ñu rey la Ousmane man ko déedéet yàlla laa àndal amul lu ma ragal ci àdduna fekk watar bi mu nekk di diggante Gabon ak Côte d'Ivoire Macky nag de gamin boo xam moo ngi doon juddu xamagul politique mu def boppam ne génie politique la xam na politique xamu ci dara bu ci xamul dara ju jubóog waa réew mi jàmmanteeg ñoom kooku mooy vrai politicien góor jigéen mag ak ndaw ki doon wax yéen seen mbokk la Cheikh Ousmane Pouye Tadjoudine préparé leen xeex du ñàkk wax naa ne amul benn réew bu baax te xeexu amu fa ma ne xeex bu tabaxu muy France sax muy Amérique muy Canada muy fu mu manti toll ci adina xex moo koy liggéey xex moo koy defar jox leen di jaayanteeg ñoom armée bi nag xaj ñi ci nekk nag nañu xaar ba ñu fetal ci xale yi léegi ak mbaam yi nekk ci biir police yéen laa joxal di ngeen am lu leen bett yéen kon nag gaa ñu baax ñi yéen laa doon waxal waxuma ak mbaam yi ak xaj yi xanaa sëriñ muntaka yeggul li xew ci réew mi يوميا يوركك نحقل يورلن غير خالص دفت سبير إلك سبور لأنك تشوف سي كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون مو تيمل دي لا بوزي كيسيون لو تونتو سوما داي سوما باي سوما مام خمو نيو كو جامول يالا يالا خموكو mbay si xacca mustaasam di jaay li ne suma maam kilifa la sëriñ la dañu xam ñooñu le ku jaamul yàlla dañ koy dugal safara yéen du ngeen dara gaa gaañu baax ñi meruma waaye waroon naa génn yi kaddu tey waa mi lay waxal jox leen ku nekk ci réew ma ku nekkul ci réew ma ngeen préparé teg ñoom incha allah yéenay gagné victoire bi ça vous partient kon maa li di wax ne asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jàngeen jëf xibaar bu neex xuloo xéeroo ngaayoo daal di meroo ci diggante way dencante jeex na tàkk ku ko fi jëlee Serigne Aliou Ndiaye góor yàlla moo tax nag mu daal leen di indil garab yi koy saafara muy lan jàmmu kër gi jàmmu lapin waaw moom la ko tudde kay jàmmu kër gi nag ab produit la bu nga xamante ni nii c'est cent pour cent naturel amul benn effet secondaire góor da koy daal di jëfandiku jigéen da koy daal di jëfandiku yow mi nga xamante ni yaay góor sama càmmañ dina la may li nga xamante ni nii mooy kàttan bu baax a baax ba doo gaaw a sa bopp yow miy jigéen tam dina la yëg may li nga xam ne mooy bànneex ba nga mën a daal di yëg sa bopp ci biir néegu sëy waaye yamu ja Serigne Aliou Ndiaye nee bu loolu weesu da leen daal di jubbale ana bi produit moo am solo lool waaye am na lu dàq neex waaw waaw jamono dafa metti ñëpp di daw di wuti li nga xamante ni moo di koom-koom moom xaalis bàjjo bi kay moom la ñëpp di wër ba tax Serigne Aliou Ndiaye daal di leen di indil jaaro jaaro bu rafet lool waaye bëri njëriñ lool jaaro bi kat boo ko takkee da ngay daal di am bayre moo lay boole ci nag kaaraange boole ci koom-koom da daal di yomb lool ak yamu ca moom dafa daal ci boole ay ndombo ay laa wax kay ndax du benn ndombo ndombo bu ci nekk rek at la muy jëriñ am na ci boo nga xamante ne nii kat boobu lay ndombo cat la lay dindil moom cat mel ni mi sonal jaam ni jat fu mu ko fekk da koy daal di faxas mu dem waaye itam boo ko takkee cat du la mënal lenn yamu ca nag am na beneen bu nga xamante ni seytaane jinne rab lépp luy lore rek moom itam du la mënal dara waaye tamit bu nekkee ci yow boo ko takkee day daal di faxas ba set wecc maanaam foo ko fekk rek mu daw bala fa te moom fu mu la fekk day daal daw bala fa sëriñ Aliou Ndiaye yamul foofu nee na nag da leen daal di aar aar kay waaw waaw ndax jamono dafa doy waar ba tax mu laa di indil ndomba boo nga xamante ni tul la tul mel ni mi waaw boo ko takkee paaka du la jam jaasi du la dagg te tam fital da lay daal di aram waaw ak am solo lii la sëriñ Aliou Ndiaye góor yàlla daal di def boo bëggee gis sëriñ Aliou Ndiaye nag dangay daal di dem fële ca Touba yëmbal ca quartier mbeddu Fass daal di jàkkaarloo ak pharmacie Afia 5 wala boog nga daal di koy woo ci numéro yii ma lay bëgg a jox waaye bala ma lay jox numéro bi dama lay daal di wax produit bi nga xamante ni mooy bonus bi waaw waaw pommade bi nga xamante ni da nga koy diwoo yow muy góor yaa koy diw fi nga ko war a diw rek waaw fi nga bëgg rek nga daal di ko fay diw bu ko defee rek mu na la neex loo ci bëggee am ay leeral ci Serigne Aliou góor yàlla ak yu baax yi nga xamante ni moom la yor di ko jàppalee jaam ni rek da nga koy daal di woo ci numéro yi 77 848 21 08 wala boog nga woo ko ci vingt 126 29 52 Serigne Aliou Ndiaye góor yàlla yee